yëpp yëpp yëpp Dip Doundou Guiss maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu képp nga xam ne mu ngi seetaan vidéo bi spécialement fans Dip Doundou Guiss yi ak partenaires yi nga xamante ni pare woon nañ pour jàpp si événement wu Léopold Sédar Senghor bi ñu nar a def le 28 décembre vraiment gis nañ engagement bi ngeen am si événement bi bokk nañ bëgg-bëgg defoon événement boobu noonu ci stade bi bokk nañu gént bi nga xam ne moom lañ bëggoon def mu nekk lu waroon historique

waroon nañ ko mën a matal pour stade bi am lepp def nañ ko on était en règle ci côté yëpp sponsors yi ñu bari ils étaient prêts donc euh, tay wa renseignements généraux dañoo dem xol gis ni def sen ay investigation donc après investigation yooyu noonu stade Léopold Sédar Senghor concert mënatu fa am d'après ñom lu ñu gis pour des mesures de sécurité donc euh, lool moo tax ñu def vidéo bi pour wax ak gars expliquer leen que ni la démé du du photo fotu kenn sauf que stade Léopold Sédar Senghor si boppam moo nekk ci état bo xamante événement bu toll noonu mënu fa am bon li am ba des moy album bi album LNN lo ñeme ñàkk disponible qui sera disponible ce 28 novembre inshallah bu soobee yalla 28 novembre album bi dina génn dina disponible sous forme de casque clé USB ak téléchargement ci site dibdunduguiss.com ci sama site dibdunduguiss.com encore une fois information yi war a par rapport ak ce que ko avez maa ngi profito pour jox gars rendez-vous le 28 novembre si bon. C'est Plaza ñun ñëpp ñu daje foofu noonu pour listening party bi à partir de 16h venez nombreux Nous faisons ko parce que tamit voilà moo fi nekk te liggéey bu yàgg la yàggam dinaa tamit jour bi jot ñu Nous ko tamit parce que voilà. yoon yemul si benn yeneen ak yeneen mu ngi ñëw quoi jaajëf merci beaucoup.